effectivement danoo ñëw déposer ñetti requête benn bi mooy requête jëmale ci li nga xam ni moom la Antoine Diome def démb muy ñombe bi nga xam ni yëngal na àdduna bi yëpp ndaxte kenn mësul gis lu nu mel ñëw Sénégal boobu ba tey dafa jàpp ni liste moom benn la dafa am titulaire ak suppléant mi ngi mel ne nga ni équipe de football ni équipe de football day am ñiy football titulaire am remplaçant mais mosoo dégg équipe bu ñu divisé ni titulaire yaa ngi nii remplaçant yaa ngi nii tooge leen ne ñaari équipe la loolu kenn mosu ko dégg fenn donc c'est la première fois ñu dem élection Antoine Diome génne lu nu mel ci sunu droit droit boobu jàngu leen ko université keneen jàngewu ko université moo tax bi ma nit laajee ma leen kii moom mooy droit diomique du droit bi ngeen jàng droit Antoine jom la parce que loolu nit mënu ko xalaat loolu nag la ñëw contesté si parce que décision boobu kenn xamul lu muy nuru décision bu yàq réew la décision bi nga xam ni la musiba la ci biir réew parce que nit da ngay dem ak xel xoolal li mu def rek tey bu fekkoon benn list moo dem ci ñaari liste yooyu nga dem assemblée nationale kenn ci ñoom am fa indisponibilité kon assemblée bi day doon une assemblée illégale parce que nombre bi nu wax moo nekk ci texte yi nombre boobu doo ko amati parce que ki nga xam ni tey daf fa invalide wala ki nga xam ni tey mënatu fa nekk kenn du ko mën remplacer te parce que suppléant amul mais mais mais est-ce que loolu maanaam man damaa xamul waa ji man ban façon nit la c'est-à-dire que dafa am yi nga xam ni danga nga koy dem ak xel mais mënoo jël droit bi di ci def lu la neex et c'est ça qui est malheureux parce que nit boo amee une responsabilité da ngay mën mesurer lan la et wane na askan wi que xamul li mu yor lan la bu demee ba warte di jël ay liste di ko diviser alors que yàggul rek ci élection locale yi nu jëm yi nu jógee boo leen gisee fële Kédougou lan la ñu éliminer ku mel ne Girassi bu leen di fàttee parce que yéen taskat xibaar yi yéenay nekk fu ne Girassi yi lañ ko éliminer mooy dafa am liste titulaire mu mat sëkk liste suppléant am ñu doon xaar mu joxe seize far mu joxe onze ñu ni ko sa suppléant yi dafa matul moo tax ñu ni ko doo bokk ci élection yooyu loolu la ñu éliminer Guirassy fa fële Kédougou yow fii nii ñu ni yow non sa liste suppléant yi am na irrégularité non dañ koy saucissonné mais sa liste titulaire yëpp ña dem te ñaari élection yi ñetti weer ñoo ci dox ñaari élection yi benn nit ki moo ko organisé bee mu def ci lii bii mu def ci lii parce que en réalité li xew mooy jàpp nañu leen ci seen ñombe bi nu amee seen non respect de parité boobu nëbb ko wala gisuñu ko bi ma déplacé woo dem génn xamatuñu lu ñuy def xam nanu ni lii cas d'irrecevabilité flagrante la te boo defee irrecevabilité léppay demandoo ñu ni ko nan la def nan ko dagg lii dem ñu téye lii loolu ban droit la mos a am amul fenn xam nga lii koo koy wax danaan mais kii kan la yàpp beneen irrégularité bi mooy li nga xam ni moo jëm ci parrain yi nga xam ni seen tête de liste di madame Aminata Touré moom ci boppam moom moo ko reconnaître ni am na un excédent benn parrain mais ñoo ko ci defee woon noonu mais benn bu ëppee baaxatul benn bu manqué baaxatul ëpp moo taxoon maali Gakou bokkul woon élection présidentielle donc ñoom ñu am ñaari ñombe yooyu ñu ni comme lii day jafe pour ñu jàkkaarlook sénégalais yi wax ak ñoom nanu xool yeewu askan wi lu leen gàll. ku nekk xam na ni Fama Meng inéligibilité moo ko frappé ñu changé ko par Anta bu amul qualité changé ko mais fan ci àdduna ak ci ban élection la ñu mos wax doublon objet de rejet d'une liste la amul fenn même ci code bi dafa ni loolu bu amee objet de rejet de la candidature la c'est-à-dire que candidature bi mooy jóg mais liste bi du jóg loolu texte yi ñoo ko wax mais mu ni comme lële nee na weng il faut ma gàll ñi lii et loolu franchement bu fekkee am nga yenn responsabilité yi xam lan lay tekki ci réew lan lay tekki ci stabilité réew am na yenn décision mënoo ko jëlee bakkan mënoo ko jëlee par parloo et loolu dafa ñuy ramener ci débat bi nga xam ni moo fa mos a exister muy débat d'un ministre chargé des élections bi nga xam ni day tëddee ñaaxanaay tant que loolu amul mënoo fi am ay élections libres et transparentes et tey Antoine Diome wane na ko ci taxawaay bi nga xam ni àdduna bi ku nekk mi ngi woote naan lan moo xew seen réew nan la droit bu ni mel mën appliqué wu xanaa léegi da ngeen am droit bi nga xam ni c'est spécialement sénégalais mu leen noo droit wu Antoine Diome la donc li ñuy wax mooy loolu du dem loolu du jàll loolu dun ko seetaan et ñoo ngi xaar sage yi nga xam ni ñoo nekk conseil constitutionnel ñu am taxawaay bi war pour mën a arrêter Antoine Diome arrêter lii nga xam ni génn na ko nga xam ni boo ko toppee sax même assemblée bi ñu jëm mi ngi koy exposer d'irrégularité mi ngi koy exposer légalité xam nga nit booy def da ngay xalaat les conséquences boo nee ni dem leen ak titulaire sans suppléant boo demee kenn ci ñoom foofu am lu ko dab ba nga xam ni mënatul nekk député kenn mënatu ko remplacer parce que liste boobu amatul bu boobaa lan lay assemblée bi doon assemblée bi nga xam ni député yu matatul bu député yu matatul assemblée lan lay doon assemblée illégale assemblée irrégulière Sénégal tool na fu ñuy toppee Antoine Diome mu ñuy exposé di exposition ay institutions parce que tout simplement def na ñombee bu muy jëm voilé mais il faut qu'il arrête C'est trop petit, c'est enfantin. Celui-là, il ne mérite même pas que je l'appelle le ministre de l'Intérieur. Il n'a même pas cette qualité à mes yeux parce que mesurez-vous la responsabilité de ce qu'il fait. ku mel noonu nga war taxaw fii ñu naan mooy sa ministre de l'intérieur mais il n'a pas cette qualité parce que xamul li muy def mooy lan donc di demander les sages pour que tout simplement ñu revenir sur ça permettre à Yewwi Askan Wi à travers le droit qui sera dit mu participer et ce même droit également exclut Benno Bokk Yaakaar